nañ ko dénk pour Sénégal ci boppam lépp lu gouvernement bi war a communiquer rek ci gémminam lay jaar waaye nag il faut mu leeral li nga xam ne mooy ñi ne ci réew mi ak ñi ci bitim réew fii Sénégal toll ci koom ak fii Sénégal toll ci sécurité ak fii Sénégal toll ci tourisme pour nit ñi bañ a tiit war yaakaar ne fitna gi day nekk loo xam ne mun na lompañ lu bëri waaye nag ñoom am nañu stratégie de communication boo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu ko dawalee Sénégal xel yëpp dina dal ñëpp dinañ nekk ci jàmm ñëpp dinañ ànd ak seen sago pour mun a jubal ci li nga xam ne mu a jubal ñu seeti maître Moussa Bokar Thiam euh, doomu Fuuta bi ki nga xam ne wax dëgg yàlla bàyyi xaal pulaar ndey xaal pulaar ne doo ko bandum ñu dem seeti ko ça va salam aleykum et bonsoir avant tout je salue la communauté haalpulaar e mi salminoon banndiraaɓe haalpulaar fof ko haalpulaar fouta e mi juurima mi weltima yo allah suren e man la yàlla dogal monsieur le président Macky Sall jox ma ma yor communication bu gouvernement bi te dañu bëgg wax xam nit ñi ne li ñu taxawal tey mooy fexe ba bu kenn am jaaxle ak tiit ci li nga xam ne mooy suñu réew bi di Sénégal ndax les forces de défence du Sénégal dañu taxaw pour kaaraange ñi nga xam ne dañu war a jóge bitim réew pour investir ñu xam ne bu ñu ñëwee defuñu ko pour ñoom dañoo ñëw taxawal pour jàppale doomu Sénégal lu mu gàtt gàtt dina am ñaar war a ñett sax war a téeméer yoo xam ne ñu ngay liggéey ci investissement boobu kon tey waruñoo nangu loo xam ne dafay lompol suñu commu suñu économie ndax nguuru Afrique ak ni nga gisee Afrique di doxe bu fekkee ne dañu continuer di tàllal loxo bitim réew day nekk loo xam ne mooy nit ki pour mu mun a dem foofu bitim réew jàppale ko loolu nag bu buñ ko buggee dindi foofu ñun ñu jongalaal suñu commune suñu suñu économie économie nag da ngay ibbi soo ibbee nit ñi ñëw jëriñ li nga xam ne mooy liggéey jox les jeunes liggéey administration accompagner leen Sénégal mën a siggi ci économiquement ci secteur yëpp nag muy tourisme muy lépp dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a def ci jàmm ak salaam dëkk bu amul jàmm ak salaam économie bi du mën a dem dëkk bu amul jàmm ak salaam da ngay gis ne lépp dafa taxaw tu vois que hier les livreurs li gën pertement banques yi ya a tout dafa am taxaw taxawaay boo xam ne vraiment loolu on ne souhaite pas que muy amaat Sénégal donc dañuy ñëw pour leeral les Sénégalais que le gouvernement dañu nekk ci ay projet yoo xam ne d'ici peu de temps le président Macky Sall va se déplacer pour inaugurer encore montrer ces projets qu'on va montrer aux Sénégalais que lii nga xam ne lañuy def ci suuf moo ëpp li ñuy wax ci kaw li ñuy wax li def ci suuf nag man maa koy yëkkati wax ko ci kaw ndax bu fekkee ne dañuy def ci suuf te waxuñu ko ci kaw ñooñu ñooy profité wut ji naan defuñu dara fekk ñu ngi def donc léegi nag communication mooy ñi nga xam ne dañuy jokkal li gouvernement bi di def dans les quatorze régions projet bu nekk le président Macky Sall taxawal na ko tu voyais taxawal na ko taxawal boo xam ne pour kenn ku nekk mën wax ne sama région président Macky Sall def na fa lii def na fa lii te dinañ fa delluwaat inauguré ko et loolu bu ñu ko defee nag mooy wane ne que le président n'est pas là di dormir dans ses lauriers war a mu toog di xalaat war a déedéet non non on est en de travailler Et Inch'Allah, d'ici peu de temps, on va montrer d'ici les 14 régions, les, tous les projets du président de la, euh, de la République Macky Sall, ce qu'il a fait dans ce pays. ma xamal leen nag euh, dañu yor entrepreneuriat euh, numérique dañu xibaar bu neex boo xam ne Sénégal am na ko yàggatul tuuti dinañu dem ci jaww ji pour mën a gën a ñoŋ-ñoŋal li nga xam ne mooy suñu communication ak suñu satellite ndax Sénégal toll na foo xam ne ci communication numérique ci sous sous région bi wax dëgg yàlla bu ñu jëlul pay tamit génnuñu ci deuxième bi loolu yëpp nag bu ko nit ñi xamee tey dañu ko war a communiquer pour les gens sachent que ne vraiment on est là aujourd'hui pour communiquer l'acte du président de la République envers ses projets de l'émergence ah ah ah kon population sénégalaise sénégalaise mm-hmm. nañu gën a renforcer notre relation solidaire ñu bañ a di dund dund ci fitna parce que li nga yàqule tey sa mbokk moo la koy yàqal donc pour ñu mën a def communication universelle mooy nañu def jàmm pour nit ñi mën a liggéey dëkk boo xam ne kenn mënul génn kenn mënul liggéey mais économie bi dafay taan te boobaa day delluwaat ci population yi donc nañu rafetal di def du jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj en tout cas tous les sénégalais sont concernés parce que débat mooy jàmm ak xéewal am Sénégal ci kaw ñu def li nga xam ne mooy bokk ndey bokk bàyyi ngeen ne ah. ngeen ne. ah. ngeen ne. Ah.